bañ a toog la rek bañ a toog la nii rek xam nga moo tax xam nga ñu ciy jàpp nii xam nga mooy loolu. bi des fois mu dox des fois xam nga. mu xaaw a demee boor quoi. xam nga xam nga tataa nit ki mun na bëgg a jël bu yàqamtee nii yenn cas urgent yi nii xam nga mu jël mu jël jakarta dem dem waaw. waaw boo xam taxi tam téeméer yi ngay def ci taxi deux cent franc yi mun nga ko génnee xëj na feneen quoi xam nga dañu préféré ñu jël jakarta ñu dem deux cent franc xam nga xëj na xëj na xëj na feneen. am nañ ay problème. des fois xam nga ak policiers yi nii xam nga affaire noonu. dañuy jóg benn jour jàpp ay casque affaire yooyu noonu wala waa mairie. ko amul kas mun nañ jékki-jékki bi ay événement bu jegee nii rek. ñu bëggee xaalis waaw. ñoo dañuy wax affaire kas ak dañuy tere dugg garage xaw xaw ma tax ñu ñuy tere dugg garage. ak bu doodi boo boo fay dugg ci biir dañ lay daggaloo ticket. garage waaw garage xaw tax ñu ñuy tere dugg garage. suñu biir moom xam nga mooy loolu xam nga loolu noonu ñu déggoon. loolu noonu mun nañ ko xeex pour ñu mën a dugg biir gaaraal te gars itam dañuy jàpp jaxe jaxaramaan xam nga mun mun sax dañuy tooñ sax bu ñu fekkee jaxaramaan bu def soog sax dañuy foog jaxaramaan moo tooñ te des fois xam jaxaramaan sax duñu tooñ suñu relation <laughs> ay ay noon gars ñoo jàppee ay noon rek mais ñëpp ay mag ak lañ <laughs> non ñoom ñoom dañuy am seen client ñu jël seen seen client fii nii xam ku nekk sa wërsëg li nga nar am moom danga koy am quoi waaw ñu a am da nga koy am. waaw liggéey bi Jakarta yi moom euh, boo xoolee ñun seen i sa fii Jakarta moo tax fii chômage bi wàññeeku suñu ñëw booy gisoon naan ñu demee añ delluwaat naan ataaya bu itam ba 4 heures matin xëyaat naan tëdd ba yeewaat bu ñu génnee change ba tey si la chômage bi wàññeeku yi yëpp man kanta man ay sumay morom yu bëri. waaw jakartaay moo ñu génnee suñu bëri mais jakartaay tax na lu ñu bëgg a faj dañ koy faj suñu soxna waaw tey ñu bëri ñi sama morom yu bëri ñu yor seen jakartaay yor seen soxna am na sama bëri yor seen jakartaay yor seen waa kër waaw kon jakartaay moom sant yàlla quoi mu ngi dem naka nag bu doon lu jakartaay ñun moom xamu fu ñu jëm parce que Zik fii moom amul benn métier quoi loolu école yi ñoo fi bëri nag tey ñun yëpp dañu doon jàng mais moyen demul noonu parents yi muy école bu nekk ñu lay fayal chaque mois bu ñu loolu am na concurrence quoi parce boo seetloo sax taximaan yi ba léegi ak chauffeur léegi dafa am en bi rank ñi mu seen biir dañu foog jakartaay bu ñu tax ñoom amuñu seen versement ba léegi da ngay gis tax da ngay gën sax surtout nga taxi mu nan la may mu xam kii nar da lay a taxaw du fa taxaw mu ñoom bëkkal loolu yëpp siis la quoi boo seetee tamit dëgg la yi lu ñu wax benn côté tamit man contre ma ne si loolu parce que ñu doon jël taxi tamit ah, seen intérêt la ñuy woon parce que nit ki tamit client yi dañuy woon seen doole fu mu toll ñu jël parce que client bi taxi am nañ client bëri doon jël taxi mais Jakarta bu xew ba léegi du ñu jël taxi du ñu jël kata parce que Jakarta moo gën a gaaw waaw mais dañuy daf dañuy égal bu ñu naree rey temps bi cinq minutes ñu fay une minute bu Jakarta bi quoi waaw lu tax dëgg waaw Jakarta moom sant yàlla xam soo gisee tamit jeunes yu bëri tey ñu dugg si Jakarta peut-être dañu amul fu ñu jàpp quoi liggéey amu fi quoi waaw yow ñëw nga Ziguinchor gis nga Ziguinchor xam nga benn instant fii au moins am na liggéey am na ay usine usines yi nga xamante ne tijji nañ ko yi mën fa dugg di liggéey quoi mais boo gisee tey jeunes yu bëri tey instant bi sa école yi sa nu tëjee nii élèves yu bëri jël nañu jakarta di dawal parce que lan la amuñu liggéey amuñu fa ñuy dugg liggéey quoi nañ naan daal sant yàlla alhamdulilah parce que ñu ngi si suturóo di ci am yàlla di ñu si jox quoi. man mënuma jàpp ni ki Jakarta mën na tere taximaan bi dox mën na tere borom tata bi dox ku nekk sa wërsëg ngay jël ngay lekk seet tata yi ñëw nañu tey ñu ngi daw mais tey clients yi dañu gis ni tata yi ñu ñëwee nii dañuy nekk de bu ñuy pour ñuy jël Jakarta sax dañuy imposer Jakarta maan yi seen prix dañuy ñëw jaka dañuy xam ne Jakarta lii lay jar 3 dañ leen ne Jakarta lay jar day gis ku ñëw mu ne la Jakarta man 200 laa yor wala 150 laa yor sinon ma jël Tata loolu xam nga ni benn instant tamit loolu doxalul réew mi quoi man loolu moom dama gis waaw clients yi waaw benn instant dañuy bëgg a ñëw imposer seen prix moo tax léegi Jakarta maa yi tamit di nga ñëw nga wax leen comme par exemple fii nii xam nga yaa ngi escale fii nga ne ma maa ngi dem Lindiane ma na la prix bi téeméer la

Jakarta man amul accès dugg ak client ci biir garage. waaw loolu man defe naa kay ki lay indil client kooku waroo ko mën a dàq war nga mën a dugg biir man nangu naa ñu bañ a jël client biir garage gën a mais ku la indil client war nga mën a dugg ak moom nga dem yóbbu ko garage bu mu bëri mu jël oto mu dem. te Jakarta ay instant bi fii.